dengan karavan di karavan au maire de la commune de Mayoba. Euh, et nous remercions euh, le maire pour cet accueil toujours aussi chaleureux que nous recevons et pour l'accompagnement depuis le, début de, la matérialisation de ce projet dans cette ville. Euh, nous remercions aussi euh, notre guide, euh, député par le Khalif général Mbacké Bachir et sa délégation, ainsi que toute la communauté qui a fait le déplacement jusqu'ici et qui continue de le faire et, qui espérons, et que nous espérons accueillir année après année pour ce pèlerinage. Euh, nous remercions aussi par l'occasion, je parle au nom des enfants de Saint-Fabio Pousseau, et de Safnatia Alamuso, initiateur et fondateur de, l'initiative de la caravane de Mayumba sur les traces du cher Ahmed Bamba et de l'ONG qui la chapeaute, euh, à laquelle je succède, euh, à la tête de laquelle je succède. Euh, une occasion pour nous de pouvoir adresser aux autorités locales ainsi qu'aux autorités euh, et à toute la communauté mouride au Euh, unifiés et ensemble euh, qui matérialisons à cette occasion euh, la vision de, de Cyril Fallo pour qui ça a toujours été son cheval de droit et son plus grand désir. et aujourd'hui, de venir appeler vraiment la communauté dans toute son entièreté, pas seulement la communauté maurite, la communauté gabonaise, parce que l'histoire entre le Sénégal et le Gabon est profondément ancrée dans nos deux cultures et dans nos deux religions, euh, de préserver Cheikh Hamadou Bamba comme notre héritage à tous en tant que Noirs et en tant qu'Africains. Et euh, d'appeler toute la communauté à collaborer et à participer, à matérialiser la vision de ses fondateurs euh, au travers de projets qui avaient déjà été initiés, comme euh, le disait tout de suite le professeur Gay, la mosquée de, de Euh, et le centre islamique que nous souhaitons mettre en place, euh, le centre islamique euh, Safnadia Alonso. L'idée, c'est vraiment de pouvoir magnifier tout le travail qui avait été ici, parce que sans Mayumba, il n'y pas eu de Touba. Et il n'est que, raison pour nous, les enfants de, de fondateurs, de répondre et de respecter notre double devoir de mémoire, tout d'abord envers notre aïeul, c'est sëñ euh, Cheikh Ahmadou Bamba mais aussi euh, à la suite de nos parents qui nous laissent euh, à la charge de de de collaborer avec leur leur leur leur communauté à matérialiser ce beau projet. Donc c'était juste pour nous l'occasion de nous présenter devant vous et de vous le dire en personne. Je parle au nom de tous de tous mes frères et de toutes mes sœurs et je vous remercie pour tout le soutien que vous nous avez montré jusqu'alors et en espérant que c'est un soutien qui restera indéfectible euh, à travers le temps. Merci beaucoup. Euh, également au nom de la caravane remercier la société Alphonsine Water qui nous accompagne depuis le de la caravane avec vraiment ses eaux source. Donc, euh, nous allons maintenant donner la parole au vénéré chef euh, Moudou Karakoso porte la parole du Khalif général des Mourides. Donc, Sérine Kosombake, vous avez la parole. Mais avant Sérine Kosombake, nous allons introduire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 alhamdulilahi rabil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwaani wa tamkin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi fi teew yépp ci seeni tur ak seeni sant maa ngi leen di nuyu bu baax a baax bàyyiwuma kenn waaye maa ngi tàmbalee nag ci ki nga xam ne moo daral dalal tey fii ci dëkk bi waaye daral nu fii ci barab bi ñu taxaw di meeru Mayomba di Georges dafa dafa dafa voilà Fontali waaw ñu ngi koy nuyu bu baax di ko sant bu baax di ko gërëm ci daral gi mu dalal fii di nuyu itam ñi mu àndal ci ay député ak ay sénateur ak mboole bi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom ci dëkk bi ñu ngi leen di nuyu bu baax leen sant bu baax leen gërëm noo ngi nuyu représentant de son excellence monsieur l'ambassadeur du Sénégal monsieur Seye Ndiaga Lo moom mi nga xam ne moom dalal ci Gabon keroog bi ñu ñëwee moo nu jël si aéroport bi ànd ak ñun accompagné ba ku nekk dugg sa nekk. ci ndigal ambassadeur bi kon ñu ngi leen di boole ak cant ak ngërëm bu baax a baax di sant mboolem ñu ngi ko àddal di nuyu bu baax itam sama mbokk yi ma fekk nga xam ne dañoo taaral jataay bi ba nga xam ne bu ma ñëwutoon taxaw fi ma taxawit kenn ku ne ci ñoom mën na fee taxaw te dana mat li mu war a mat mën na maa sax gétti te loolu laa gën a yaakaar ci ñoom maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn jotaay bi rafet na couleur lañ ko bu baax a baax man nga jot li maire moo ko wax. Sëriñ Cheikh qui l'émissaire du khalife général des Mourides Cheikh Mountakha Bachir Mbacké yàlla fi yàgg su te wér qui est son père le le fils aîné du khalife général des Mourides actuel en son nom transmet des remerciements les plus solennels les plus chaleureux, les plus cordiales vers le maire de la commune de Lambarne, de, de, de Mayumba, qui est le président du conseil municipal, avec l'ensemble de son conseil municipal et l'ensemble des conseillers et des élus avec lui. Mais aussi Maire, député, sénateur. les députés, sénateurs, les députés sénateurs et les chefs de service et directeurs régionaux et les responsables officiers de la gendarmerie nationale et des autres services de la DGD et autres, qui sont présents et qui ont accompagné ce travail. Mais sans oublier aussi de remercier et d'encourager et de féliciter l'ensemble de sa propre famille qu'il la trouvé sur place et qui ont donné une couleur de gaieté, une couleur de respect, d'honnêteté et d'ouverture et de collaboration à cet événement. Mais sans oublier aussi l'ensemble des membres de la caravane les talibés et tous les gens qui sont présents aujourd'hui dans cette salle-là pour avoir honoré de votre présence cette caravane, l'édition 2022, avec lui. Il prie pour vous, pour votre bonne santé et pour votre longévité. Euh, gannaaw sama mbokk yi bu ma leen nuyoo ba noppi jox leen seen wàccuwaay maa ngi rendre hommage sëñ Fallou Bousso maa ngi koy ko bu baax ci xalaat ak ci ñaan comme ni ko defee léegi eh, ñun ñëpp defandoo nañ ko alhamdulilah yàlla na yàlla nangu lépp. Ah, il dit que spécif spécifiquement et de manière très très franche et honnête et très respectable il rend hommage à Serigne Fallou et sa femme son épouse Sokhna Diarra Bousso qui ont été les initiateurs et fondateurs de ce que nous vivons aujourd'hui dans cette caravane-là qu'il prie pour le bon Dieu, il prie pour l'ensemble des saints et l'ensemble des saints musulmans et des prophètes, qu'Allah les récompense le plus haut niveau dans le paradis éternel. ma noppee ci ñoom di ñu nag bu baax ak a ñaanal ak a ziyaare ñi nga xam ne ñoo ko fi taxawal tey di sëriñ Cheikhouna Bousso soxna Maam Asta Bousso ak njabootu sëriñ Fallou yëpp ak sëriñ Cheikh Mbengue mi nga xam ne. ak euh, baddo ak mboolem ñi mu ko àndaloon a xam ne bi sëñ Fallou nekk ñoom ñëpp ñoo àndoon liggéey bi ñoom ñëpp maa ngi leen di beral seen nuyoo bopp. Le chef est en train de saluer et de remercier aussi la progéniture présente aujourd'hui de sëñ sëñ Fallou Bousso et Soxna Diarra Mame Assa Bousso et Cheikhouna Bousso accompagnés de la famille sëñ Fallou Bousso Tamba et les autres pour tout le travail et le lait qu'ils ont reçu avec toute la charge mais que Dieu va les pour la réalisation de cette vision importante des parents qu'ils ont laissés derrière, accompagnés et appuyés et assistés par l'ensemble de la communauté mouride, en l'occurrence le comité qui est en place, coordonné par Serine Chermeg, Serine Bado, Serine Karlamou, Sorna Bator et toute l'équipe. Mais aussi ne pas oublier de remercier et d'encourager l'ensemble de la délégation de Dakar, Serine Mamorlo, Sorna Fati et la, son frère, euh, qui est son représentant de Sokhna Bali ici. Sokhna Bali qui les a envoyés ici pour événement. Tout la couleur la hauteur. Je vous remercie. di nuyu nag bokk tàll bi gis yëpp moo xam ñu ngi fii tey ci salle bi wala nekkuñu salle waaye ñu ngi ci dëkk bi wala ñu nekk ci Gabon fu ñu fi mën a nekk rek nañu xam ne nuyoo boobu ci lañu bokk te woote bi itam ci la bokk alors. pour ne par aller trop loin, donc mettre l'ensemble des responsables qui sont là, l'ensemble des pèlerins, l'ensemble des invités qui sont dans le même ordre d'idées, dans les salutations les plus cordiales, les plus chaleureuses et de santé, de longévité et de succès. loolu noppee ma jàll ma dellusiwaat nag ci maire bi nga xam ne moom tey euh, bi ñu fi ñëwee en ci karawaan boobu dalaloon nañu fële ca biir dëkk ba ca mairie ba wala ci benn place boo xam ne moom moom moom dalal waxtaan ak ñun waxtaan wu rafet yaatal nu lool wax itam ay initiative yu mu bëggoon a jël ci caravane bi ak taxawaay bu mu ci fas yéene taxaw te loolu lépp yàlla dogal na mottali na ko. Il tient à insister et à réaffirmer vraiment euh, sa reconnaissance envers monsieur Paul Tagui, le la commune. D'abord, depuis l'édition 2019, avec la très belle réception et très respectueuse réception qu'il a reçue en tant que chef de délégation, et tout l'honneur qu'il a eu de partager avec vous dans la solennité, l'accueil, le respect et la fraternité. Mais aujourd'hui, aussi dire qu'il est en train de se rappeler de l'ensemble des préoccupations qui avaient été déjà prises en compte et l'ensemble des projets, des programmes sur lesquels vous travaillez et que invité woon nañ ko Masaalikul Jinaan ci ouverture bi nga xam ne dafa nekkoon bis bu màgg ci nun di bis bu rëy ci nun di bis doon bis bu rëy ci xalifa bi ba mu teeweel ko boppam ñu invité ko mu bàyyi li mu doon def bàyyi ab liggéeyam lépp ñëw Masaalik ànd ak nun bi yàlla dogalee ñuy julli mi ngi toog sama wet bi nga xam xamee noppi nañ ci loolu dem naa otelam seeti ko ñu bokk waxtaan mu gën a yeesal li nga xam ne moom la waxoon loolu noonu ko sant bu baax di ko gërëm ba noppi itam jox naa ndigal sëriñ xaadim nga xam ne dafay taxawee ñaari ñaari anam genn gi sëriñ bi moo ko tànn ngir mu gunge ma waaye yàlla dafa def mooy euh, moo yor ci maire bi huit cent moom mi ngi nekk euh, huit huit maire adjoint maire ci Touba waaye moo yor comité décentralisation coopération décentralisation moo ko yor ci maire bi loolu tax na wax naa ko ne ko na leen yónnee invitation màggal gi nu mu gën a gaawee ngir ñu assister ko nañu assister woon Massalikul Jinaan le chef rappelle l'honneur et le plaisir qu'il a eu à vous envoyer une invitation pour l'ouverture et l'inauguration de la grande mosquée Mazar-i Jinan à Dakar. Et vous l'avez honoré si brillamment. Et d'ailleurs, le jour, le jour, quand il faisait de la prière, il s'est rappelé, vous avez prié ensemble, vous étiez à ses pour faire vos prières aussi. Et ceci est très important et ceci est très marquant. Et que aussi, il vous a retrouvé dans votre hôtel, vous avez échangé ici à Mayumba et vous avez réaffirmé, reconsolidé et vraiment pris en compte l'ensemble des préoccupations qui étaient déjà signalées. Mais un aspect extrêmement important qui souligne, c'est le Khadim Baké qui est là avec lui, qui a été désigné doublement par le Khalif pour l'accompagner et aussi par sa propre présence en tant que responsable au niveau du conseil municipal de la commune de Touba, parce qu'il est vice commune de Touba s'agit de la question de, la, de sa coopération décentralisée, les relations entre les mairies, les relations entre les communes, les relations entre les départements, l'intercommunalité. Donc c'est quelqu'un qui vous tend la et il va vous préparer une invitation officielle et solennelle que vous allez recevoir pour le magasin de Touba prévu au mois de septembre. Et qui va va le faire en urgence parce que c'est très important que li may wax lépp itam maa ngi fàttali ne maa ngi koy wax ci turu a cheikh mahamadul muntaqa mahamadul bachir xalifa général des mourides man ak délégation bi ma àndal te wax naa ko léegi mooy sama bokk yi toog yépp kenn ku ne mën a représentant ci barab moo tax bëgguma tudd euh, bëgguma lim waaw de dire il ne fait ce qu'il a reçu comme consigne du khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yàlla fi yàgg te wér notre guide spirituel son père qui l'a envoyé à Mayumba dans cette délégation avec l'ensemble des gens qui l'accompagnent et il ne va pas les citer mais il sait que tous les gens qui sont dans sa délégation ils portent le message du khalife et c'est le message du khalife qu'il traduit littéralement avec nous sans aucun jambage sans aucune augmentation ni maa ngi beral jigéen ñi itam seen cantuk bopp xëy na ñu ngi ci biir liggéey bi saa su nekk waaye du teye ñu sant beral leen seen cantuk bopp ak seen ngërëmal bopp ci cantuk jigéen ñoo ñooñu nga xam ne jigéen ñi euh, membre euh, daayira bi lañu ak membre comité d'organisation bi lañu dañ koy doon doon maa ngi leen ci sant bu baax leen ci gërëm ndax taxawaay bi rafet na waaye di occasionné wu itam di sant jigéen ñi meeru Mayumba ñi nga xam ne jox nañ sëñ bi benn kado boo xam ne ñu ngi ko jox xalifa général de Mouride muy cadeau boo xam ne dañ ci dañ ci wane dañ ci niroole li nga xam ne moom lañ bëgg mu am te mooy simulage entre euh, Mayomba ak Touba nga xam ne moom lañ ci bind moom itam incha allahu daañu leen ko tegal ci loxol sëñ bi gannaaw buñ ci invité sëñ bi dañ ci am mbégte mu toll noonu incha allah. Alors, il est en train de dire deux choses extrêmement importantes. La première, c'est qu'il remercie et qu'il prie solennellement pour la longévité et pour vraiment le succès à l'ensemble des femmes qui travaillent dans la caravane Mayumba, pour leur bravoure, leur courage et leur abnégation. Mais sans oublier aussi, en deuxième position, l'ensemble des femmes de Mayumba qui, par le maire, ont transmis un cadeau avec un vœu du jumelage entre les deux grandes villes saintes, ces deux villes saintes, la ville sainte de Mayumba et la ville sainte de Koura. C'est extrêmement parce que nous sommes dans une ville sainte. Et ça, nous le rappelons chaque fois. Nous sommes en terre sainte et nous pensons que le jumelage entre les deux villes de Mayumba et de Touba sera dans la sainteté de l'élu, n'est-ce pas, divine. Nous le, nous, le, pensons vraiment. En dehors de ça, il tient à rappeler que nous sommes dans une journée de prière. Nous sommes dans une journée importante de prière et de recueillement et qu'il fera tout le nécessaire la famille pour prier pour la longévité des responsables de Mayumba, mais aussi des responsables du gouvernement et des responsables des différentes euh, euh, représentations consulaires. Sans oublier M. Lo, qui est secrétaire au niveau de l'ambassade, avec l'accueil, la chaleur, le respect et l'ouverture, et l'ensemble aussi des responsables dans l'ambassade du Sénégal, n'est-ce pas, du Gabon au Sénégal, M. Ndiaye et son équipe, pour leur ouverture, leur accompagnement jusqu'à ce niveau. du ñu am na baat bu ma wax bëgg naa mu gën a leer mooy jumelage bi nga xam ne ñu ngi koy soxla di ko bëgg diggante Mayumba ak Touba. le chef insiste sur un mot jumelage avec le e l e r jumeler Touba et Mayumba que c'est un vœu pieux il le répète et ceci doit voir le jour dans les conditions les plus rapides. pour porter l'ensemble des projets de Touba vers Mayumba et porter l'ensemble des projets importants de Mayumba gannaaw loolu itam nii ma fi taxawale sëriñ bi ànd ak sëriñ Xaadim ak sama bokk yëpp sëriñ Moustapha noonu lañ fi taxawale Soxna Baali ci jëmmi ji di Mamour Lo ak Soxna Maam Faati Mbàkke ma la toog di sama rakk nga xam ne ñoom soxna Bally moo leen dépassé foofu ba fii jox leen la mu leen jox waaye moo wax leen na leen nag naa wax ci seen kàddu ndax kër ga noonu la tëdde te nu ñëpp benn lañ te yàlla dafa def sama relation ak moom di relation bu kawe bu am solo boo xam ne doyloo na ma ci lu bari waaye may itam alhamdulilah doyloo naa ko ci lu bari mën naa ko représenté fenn fu nekk loolu moo tax mu jox leen diggante leen bu ñu ñëwee bu ñu wax ci dara xam nañ lu wax li may wax moo ma dàq waaye loolu la ci am ndigal il tient à remercier à encourager à féliciter et vraiment prier solennellement pour la délégation qui a été envoyée par soxna Bali Mountakha en l'occurrence Serigne Mamor Lo et Sokhna Fati Sokhna Fati Mbacké qui est là et dire que ces délégations sont venues en tant que représentants de la marraine mais que l'ensemble des responsabilités, les échanges, les discussions, la même manière qu'il a porté la présidence de la délégation pour le Khalif général avec sa délégation, de la même manière, son Bali à demandé à ce qu'il parle à sa place, en son nom, en lieu de place, au nom de la même famille, la même famille dans laquelle lui il est l'aîné et que les gens l'acceptent et que les gens lui donnent le devoir de porter l'ensemble parce que la famille fonctionne chez Serigne Mountakha kon maa ngi koy maa ngi koy gërëmal mbooloo mi maa ngi gërëmal mbooloo mi maa ngi leen di gërëmal soxna Bali bu baax a baax ci ab taxawaayam bu rafet waaye maa ngi gërëmal soxna Bali mbooloo mi itam ci tànn gi ñu ko tànn ci biir nit ñi doyloo ko yéene am ci moom yéene am ci moom yaakaar ak doyloo ba tax ñu jël. Euh, kàddu gu mel noonu wala marraine bu mel noonu ni ko teg ci kawam loolu itam moom itam maa ngi ko ci jotteel ak cant ci mbooloo mi nga xam ne ñoo def loolu ñoo ko xalaat euh, te wax na ma it ne ma soxna jaara ci boppam ndeysaan Bousso avant muy dem ñëw na ci moom ba waxtaan ci ak moom yàlla dogal at moomee Covid bi moo tee mu ñëw comme ni ko ni ñu ko waxee léegi ci Covid bi yàlla na ko yàlla demal mu dema dema dema dem te du dikkat yàlla na ko yàlla wóotal ay xewal yu bare bare bare yoo xam ne du fi barke sëñ Tuubaa waaye ñëw nañ ba ci moom mu waxtaan ceeg moom balaa muy jël kon nag loolu moom itam maa ngi santal mbooloo mi fi nekk ci nekk ci comité d'organisation bi maa ngi leen di santal soxna Bally leen ko gërëmal bu baax waaye soxna Bally maa ngi gërëmal mbooloo bi itam bu baax a baax baax kon ñu xam ne euh, suñ borom tabaaraka wa taala xëy na suñ ngërëm jëriñu ko dara waaye teewul moom ma wax ci alxuraan ne radiyallahu wa radu anhum kon nag ñaar yooyu mosuñ mënuñoo ko kon kii gërëm nañu ko waaye moom itam alhamdulilah gërëm na mbooloo le chef tient à dire que conformément au Coran le remerciement et la reconnaissance est double elle est bipolaire il tient à remercier au nom de Sokhna Bally et sa délégation l'ensemble du comité de pilotage et d'organisation et l'ensemble des gens de la caravane qui l'ont choisi comme madame. Mais aussi, il tient à remercier l'ensemble du comité de pilotage d'organisation de la caravane pour le choix porté sur son abandon. Donc vice-versa, les remerciements sont quelque chose qui sont reconnus dans les deux sens. Il remercie pour son abandon, mais il pour les responsables de la caravane pour le choix porté sur elle. Donc que ceci est un acte fort et important et que Dieu le paie kon maa ngi tëye kàddu gi ci kaw. di sant di ñaan monsieur le maire et la représentant de l'ambassadeur ñu jolli jot leen suñu nuyoo ak suñu cant ci président Ali Bongo mi nga xam ne moom mooy président réew mi tey te lii lépp ci yaatalam la bu yaatalu doon du sotti euh, yaatal na Sénégal yaatal na Sénégal yi jàpp na suñu président xaman xamante ne moom waaye di ko yónni itam Euh, représente l'ambassadeur mu jotale ambassadeur bi waxoon naa ko ci bureau moom itam mu jotale na ay cant ci président Macky Sall ci kaw ñaan ko itam mu gën a jàpp ci karawaan bi gën ñu ci jàppale muy ñoom ñaari président yépp yaakaar naa ne ñun nii ñu koy doxee bu ñu ci jàppee ñoom itam yàlla mën naa dogal karawaan bi daa dox jëm ci kanam bu soobee suñu borom. Le chef tient à solennellement devant tout le monde devant l'audience remercier féliciter et prier pour son excellence monsieur Ali Bongo Ondimba Nous sommes reconnus pour sa gentillesse, pour l'accompagnement qu'il a toujours eu envers la culture et l'ensemble des Sénégalais du l'ensemble du peuple sénégalais ici présent. Mais aussi la reconnaissance vers le président de la République, son excellent M. Macky Sall, et lui demander aussi d'accompagner au plus fort ce qui se fait aujourd'hui en termes de développement de la communauté au sein du Gabon, mais aussi que

bi muy ñëw Mayomba indaal na fi lu bari alhamdulilah waaye bi mu fiy jógee it jëlee na fi lu bari alhamdulilah ni ñu ko doon nettalee barki démb bi muy ñëw ñambaay bàyyi jàpp ñu ne sëñ bi mën naa doxati benn jéego jëm ci kanam ndax jàpp nañ ne fi mu war a yegg fépp yegg na fa ni mu war a mel népp mel na ne waaye wax nañ dëgg. ndax nit ki bu fekkee dolli koo imaam imaan dolli koo ci dara dolli ak wattandiku dara donc dolli ci ak sàmm dara dolli koo dara ci ci ci ci ci nangoo jaamu yàlla ak bëgg lu baax loolu dafay mel ni nit foofu la mën a yem kon sëñ Tuubaa bi muy ñëw nag yooyu moom da ko fi indaale ba defoon nañ ne dara mënu cee dolli moo tax biñ ko laajee ne ko waaw yow bu fekkee dolliku fa yii nga wax al iman al tahafuz al wara xubbul xayr iqamatu ibadallah tabaraka wa taala kama umar fekkee yooyu dolliku nan lan nga fi dolli ko mu wax ne waaw ah nag lu bare bari nag macha allah lu bare bari nag ndax dolliku naa fi xam yàlla bu wér al maarifatu billah dolliku naa fi itam al al yaqiin dolliku naa ko fii al wusuul àgg ci suñu borom tabaaraka wa taala dolliku naa fi ak nag mayidul jeex mayidul jeex nag yemul tan kon bi muy ñëw indi na lu bari waaye alhamdulilah jëfi des jël maanaam jëlee na fi lu bari kon nag sant yàlla rek moo ci war ñu xam ne loolu kat du lu woyof ndax mawaahibu laata naaha moom kenn mënu koo firi kenn mën mën mënta xam fu mu tàmbalee kenn mënta xam fu mu kon nag jële na fi lu bari kon suñu maa yombal suñu maa yombal gi nañ ko fonk bu baax a baax a baax dañ ko téye bu dëgër a dëgër a dëgër ndax loolu kat fii la ko amee ndax sëñ bi bu ne gongo rek mi ngi ko jël mi ngi mi ngi ci jublu barab yii di barab maa yomb kon alhamdulilah rabbil alamin nañu gën a téye caravane bi gën góor góorlu gën koo yaatal ci képp koo xam ne eh, bëgg nga lu baax ci képp koo xam ne mën nga lu baax sala lu baax loolu ay nga def nga def ko ci ma di ko tëje nag ci sant taalibe yëpp ba ma ma leen nuyoo woon rek laa ne leen di jottale ak cant ak i ngërëm te leen soññ nag taxawaay boobu itam ndax nag sëñ bi moom li war a def def na ko euh, li ci des noonu la war mooy dox gi ak wax gi am na loo xam ne koo ko defalul sax malaaka yi dañu wàcc def ko waaye nag danañ am ci suñu rolu bopp boo xam ne war nañ cee sàkku tiyaabu sàkku ci lu baax sàkku ko ci liggéeyal sàkku ci ngërëmam kon loolu la war a def li ci des itam weesu lu sant ñi nga xam ne ñooy jot li xabaar yi di jot li lépp loo xam ne def nañ ko tey ci Mayumba incha allahu ci fi saasa ñëpp ci àdduna bi danañu jot rawat na waa Sénégal kon ñoo ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen baalu àq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu en revenant sur les enseignements qu'il faut tirer de la présence et l'arrivée du Cheikh à Mayumba et dans l'exil dans les différents territoires de Libreville, de Lambaréné et de Mayumba. Quand les gens lui posaient la question au Cheikh, Cheikh Ahmadou Bamba, pourquoi vous allez dans cet exil sachant que vous n'allez pas vous augmenter quelque part, vous n'allez pas vous bonifier quelque part Vous n'allez pas, pas, changer parce que vous avez déjà acquis la sainteté même avant de quitter. C'est ce que la famille lui a demandé. Il a répondu ainsi. Je vais amener quelque chose là-bas, à l'Irsan, à l'Iman, à l'Islam. Je vais amener toutes les forces théologiques, islamiques et les principes religieux dans le respect, l'honnêteté, la santé, le respect de soi, le respect des autres, l'interculturalité, l'ouverture, le dialogue entre les religions. Le dialogue entre les religions. Nous sommes à Mayumba, il ne faut À Saint-Odile, il était là pendant cinq ans. Il n'a jamais fait du mal à l'Église. L'Église ne lui a jamais fait du mal. Il dit respectez votre religion, je respecte la mienne. Ce sont les Français qui sont partis détruire ces quatre bouts de bois là où il priait. Mais lui n'a jamais touché quelqu'un. Et dans ce respect, il a dit il y a une acquisition de trois éléments fondamentaux que le cheikh a dit et sur lesquels il faut revenir. Mahrifatu billah, al-wusul la connaissance de la vérité intrinsèque, la vraie vérité. Pas la vérité avec petit v, la vérité avec grand v. Al-Wusul, l'acceptation et la révérence continue de l'excellence dans les principes de l'islam et de la sunna musulmane. Al-Makhrifatul Billah, la connaissance réelle, la quintessence de la connaissance réelle de Dieu. C'est là que j'ai, je, me suis, je fait une créature qui a compris l'existence divine à son sommet. Et c'est là qu'il parlait à la mer de Mayumba, l'océan, les vagues de 4 mètres qui tombaient, et qui sont toujours comme ça d'ailleurs, en, en diminuant un peu, les vagues sont tombées. Il a parce que vous tombez, parce que pensez que vous avez la force. Non, tombez doucement. Vous êtes des créatures, comme moi, une créature de Dieu. Donc tombez doucement et faites attention. Et la mer s'est calmée. Cette mer-là, elle est en eau profonde, du point de vue océanique, elle se trouve dans les mers les plus houleuses du continent, mais elle s'est calmée parce que Shintuba lui a parlé. Nous sommes très heureux, et le Cheikh le dit. Le Cheikh le dit, il le rappelle. L'ensemble des bienfaits que les saints n'avaient pas, que les saints cherchaient à travers les territoires islamiques, indiens, orientales et tout, Lui, il l'a eu jusqu'à ce que ça soit au comble des choses. Parce que quand l'autre lui a enlevé ses quatre bâtons, il s'est réconforté disant que Dieu m'a dit, dans mon caïbou, dans le cachet, que j'ai deux grandes mosquées, la mosquée de Touba et la mosquée de Durbel. Maintenant, moi, j'ajoute quelque J'ajoute quelque chose. La mosquée de Touba et la mosquée de Durbel est l'ensemble des mosquées mourides à travers le monde, dont Mazal Dinan. L'ensemble des mosquées sont pour lui, parce qu'il s'est battu pour l'avoir. Il est au la sainteté. Nous sommes très heureux d'être là. Le chef vous salue et vous donne des prières et vous dit merci beaucoup.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 établissement Mbaye et frères Techno Habitat ak Digital Store ngir gunge leen ci bisu tedd yooyee.